soo sama gaañi nañ leen gën a sant yàlla ñu gën a takku liggéey waaw liggéey nag si jaamu yàlla la bokka mhm. si jaamu yàlla la bokka de liggéey <laughs> akama koo fonka waaw waaw te am na suma morom yoo xam ne ay jàmbaar lañ ñu ngee daw di daw suba di daw ngoon di daw bëcëg ah non macha am na suma yenn càmmeñ yoo xam ne tam jàmbaar lañ de waaw dañ dee daw suba daw ngoon daw guddi ngir lan njaboot ngir lan ndey ak baay ngir lan famille waaw waaye lu mu métti métti daal nañ leen sant yàlla rek waaw ñu gën a góorgóorlu waaw affaire gi moom métti na de xosul bi <laughs> ay waay xosul dafa métti de ah rawatina si biir seeda bii hmm? nga waroon a ak sa alaaji Ah, def ba baax ah, nga tëddal rek ba ay foo alam bi ne la peep peep jógal <laughs> noo yombul de yombut waaw waaye kontaan naa lii rek laa leen indiloon nit ki danga war a gom sa boppa nag waaw bañ a you know fii naa du ma liggéey lii duma def lii ma du ma def lii liggéeyal rek mm-hmm. saa yoo liggéeyee su weer bi deeyee xoolal da nga macha allah kontaan naa waaw kañ jërë ngeen jëf man la ami seen mag seen xarit seen soppe di leen wax ne kontaan naa si support bi si YouTube channel bi jërë ngeen jëf maa ngi nii gomantu hmm? suko suko bi neex neex bi ay xanaa neex waaw di ko suku suku dafa am ñoo xam ne dañ ma dee reetaanloo waaw ndax ami seen mi téye téléphone am def vidéo ma seetaan ko ak samay doom ma jël vidéo bi duggal ko ci biir internet bi yow nga ne nit ku baax nga nit ku yaru nga nit ku màndu nga nga nekk ci biir internet bi di wër di wër di wër ba nga dajek vidéo ami seen fu muy waxee bajo ak kooy yow nga ne man ngaa jooj te yow xamuloo ma ami seen xamula ñaareel bi nga ne dinaa toog ba suma doom yi di seetaan samay vidéo ak sumay set man loolu laa bugga waaw ndax man gënuloo maa xam ne am naa ay doom te doom yi nga xam ne moom laa am dañ dee seetaan samay vidéo ok yow sa ana yow ana man ah yow kay soo ma munee seetaan seetaan ma mënuloo ko nga dem jaama ne ñooy te man vidéo yi ma dee def yépp musuma saaga nit ndey musuma o kenn turam ok man dama dee wax